daan lam-laamee Ousmane Sonko day bokkam dee turbine yéen a kaay naan man day bokk moom yoon ci boppam moo ni nguuru Sénégal xam nga Ousmane Sonko mi nga xam ne faase woon nga turam ci liste électorale bi dama ni riigaat ko ci lii nag di ubbi yoon ngir candidature bu Ousmane Sonko mi mën a doon dëgg ci réewum Sénégal ki di tribunal grande instance bu Ndakaaru moo daal di joxoñ ne leen turam wa ca liste ya fa yàlla juge bi daal di xam le ni ma ni erreur moo daal di am turu Sonko na riiguwaat Vox Populi daal di may xamal ne Ousmane Sonko day daal di am ndam ñaari yoon ñaari yoon Racine Thion juge bi nga xam ne mi ngi fii ci Ndakaaru daal dinay dëggal juge Sabassy Faye bi nga xam ne moo nekk sa sigi coor moom Ousmane Sonko santee ko yàlla yor yor yéen kaay naan kon loo ci manti déggit yoon daal dinay am ndam ci kaw état boo xam ne daanaka dafay tëñtëñi rek si rek clé d'or li naan kon nan yombal jël gi day tax na kurpañ yi daal di dakk te gis nga nangu sax defet du gàcce waaye tam du boye di du yaafu sit waaye ab grandeur la akub sagesse Alioune Tine naan kon yi nga xam ne daal dinay wàññeeku saa Ousmane Sonko wane na ni réew mi daal fii mu taxaw nii fii nii fii ñu ko rik fii Malick Gakou naan kon askan wi dong moom moo am cëggal guy ci ne kii la ñuy tabb njiitum réew am déet Juan Branco nan leen yàkkamti naa jël samay loxo teg ci yu Sonko ba nga xam ne moo fas yéene yenu leen Sénégal jëm ak yéen ca kanam Lamine ñaan naan kon gannaaw saba si fay gis nañ Ousmane Racine Thion njega si laa naan kon la ma waxoon jóguma ca te la ma waxoon ca laa am ndam Ousmane Sonko day turam moo warul woon jóge ci liste électorale yi Sénégal dañ koo ni tellu kurpañ ci bët mu daal di daw wutali ardo juge ba naan kon laata nga yegg si waat ci lang gi ñu jël turuk Ousmane Sonko riigaat ci liste électorale yi maître El Hadj Diouf naan leen dee teel a ñu ko ubbul géew xam nga juge suprême bi mënta wax lii barki démboo Njaay ne dugal gi ñu dugal Ousmane Sonko ci liste gi du yoon war xëyaat naan nañ ko ci dugal turbine yéene kaay naan kon moo taxit mbir mi dina miti wala moom Ousmane Sonko nag avocat yu Sénégal ña nga jëm ak moom ci ëttu a kawe ba 24 heures yéene kaay leen en tout cas Ousmane Sonko ma ngay tax may naan maa ngay sant yàlla maa ngay sant askanuk Sénégal yi nga xam ne ñoo ma seetaanul ci sabab xeex te budul woon ak ñoom làmbaay ñaaw réew ko quotidien naan kon fi mu ne am na yet woo xam ni ma ngi cay jafanduwul laas yéene kaay naan kon Ousmane Sonko gagné na bataille instance ba l'enquête naan kon instance nga wax de jeexagul ndax avocat yu Sénégal fas nañ yéene jàpp Ousmane Sonko daal di yóbbu ca cour suprême Walf Quotidien naan kon Ousmane Sonko bun ko tëlee fii mu am ndam ñu yóbbooti fii ñu fuqati ndamam tout cas ping-pong judiciaire lii la Sonko dëkkee ci réewum Sénégal l'observateur naan ko ndam li ndama ngi Ousmane Sonko am na ndam maître El Hadj Diouf ci Vox Populi naan leen ndam li ndam li xanaa xamu leen ni kàddu gu mujj gi ëttu attekaay bu kawe bee ko am te fas nanu yéene ñaabar ñaabari jëm foofee tribune yéene kaay naan man fi mu ne yoon tamit ma ngay ñaabar ñaabaree metre Moussa Diop moom maître yéene kaay des médias bi xamal ma ne daal dinay amati beneen retour de parquet ñu koy toppee faux usage de faux waxtu woo Vox di ma xamal ne moom président Macky Sall ma ngay kaas ci yebo yi ma nga naan accord de pêche nga xam ne ña ngi koy jox waa bitim réew daanaka juralul Sénégal njëriñ lu bari te waxtu woowu ma ne la ña nga jàpp sunu géej gi di jeqee ka jeqiwaat dara daanaka bàyyiwun ko ci géej gi lépp la ñuy roñ daal di yóbbu booba la sa nga may xamal ni waa parti démocratique sénégalais yee xaar Karim Meïssa Wade yéen a kaay bi naan maan ña ngi koy xaar ngir campagne Karima ngay photo di leen yónnee tribune naan maan rax ci dolli ñàkkub allié de taille muy docteur Cheikh Dieng njiital parti bii di fépp taw féex daal dinay beruk daaraam maire bu jidda caaray kaw faroo nit élection yi parti démocratique sénégalais fas na yéene bokk ci ñuy dagaat baatu askan wi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2024 daal dinay déposé caution am ca CDC ba nuppi docteur Cheikh Dieng naan delloowaat leen seen géej laa ci jublu delloowaat leen seen suufit laa ci jublu auditer ressources naturelles yi laa ci jublu auditer contrat yi nga xam ne moo soxal li ne ci sunu suuf si laa ci jublu taxawal lu toll ci ñaari junni ferme agricole jébbal ko ndaw yeeg soxna yi ci ñaari million ci emploi am ci réew mi ci mbay mi ci sàmm gi waaye itam ci agro alimentaire lii laa ci jublu joyanti wér gu yaram niki noonu njàng meeg njàngali mi laa ci jublu ay collège de métiers ak technologie samp ci bépp département waaye tam ay formation professionnelle ak i centre d'éducation civique am ci réew mi lii lañ ci jublu njiital coalition Tawfekh 2024 naan candidat la libération yéene kaay naan kon en tout cas béykat yi ñi ngi daj lu mburu tajul fii ci réewum Sénégal lu toll ci ñetti téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay hectare moom la ñu ne doññet ci ay béykat mbir maa nga amee ca Pointe Sarène leen ni nag ab terre terrain de golf lañ fay daal di tabax loo xam ne amalu leen njariñ l'enquête quotidien naan maan fi mu ne ku dëkk ca gore day sëb fit toogatul chaloupe ya nga xam ne moo leen doon jéggiloo fi mu ne moo paan ña am ca bato néew di doole ca gaal lu ne mën caa am turbine yéen kaay naan maan booba ñaa nga xam ne ay photojournaliste lañ ña ngay waxtaan ci seen biir xool nees def ba yenn image yi du génn lees ca defit mu nekk image boo xam ni boo ko génnee tëdd nelaw le point naan maan Adama Sow soldat bu presse nationale bi daal dinañ daal dinañ koy sargal ay xibaar ni moom